sa fait longtemps. Hein? Mais comment toi tu peux dormir à l'heure ainsi là Je suis Ah, mon ami, si ça l'heure là, tu te réveilles, le céréal va partir pour te laisser. De... On dit quoi, madame ah, okay. euh, Madame est là. Ça va bien. Voilà, on attend même un enfant, tout ça là. Hein Mbakayoko <laughs> oh, ah, oh, non. non, tu as un d'enfants oh, dans la ville là-bas. Tu as rempli ça de beaucoup de bébés. Faut Et ça, c'est deux ou trois mois. Benito. <laughs> Benito. Ouais, frère. Benito. Ouais, frère. <laughs> dans le monde de maintenant. Ouais. <laughs> Garçon, il rit plus. Le monde où on est dedans maintenant, garçon rit plus comme ça. Hein? Ah. Rit là, on a pris, on a mis à <laughs> ah mon frère. Ouais, ça c'est vrai. Bento, moi t'es mis dans tous la fille que j'ai eue, avec la fille que je aujourd'hui. Ndé Diallo là. Ah ouais, Tu as fait tout pour moi. Ça, vrai, ça, Donc, Benito, mon bonheur là, c'est ton bonheur. Ça, Mon malheur là, c'est ton malheur. Mhm. Tu comprends Mais Benito, depuis un moment, je ne comprends pas quoi. Je suis dans mon salon, je suis dans, ma chambre, j'ai des apparitions, je hmm? vois des trucs des visions. On dirait que j'ai ram dans ma tête. Hmm, Bakayoko J'espère que t'es pas rentré dans l'affaire de sorcellerie là-dedans Ah. Tu connais beaucoup le Tcham Tu es au pays, là, tu es au village. Là. Lui, tu es devenu tout d'un coup milliardaire, tu as beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Ouais. Lui, tu vas à Paris, tu Faut viens parler, là. Oui. Lui, là, c'est comme ça, il a commencé les visions. là. Hein. Il voyait des gens en rouge, hein. des gens en bleu, des gens en violet. Tu n'as pas eu son bras là Son bras, tu sais quand il marche, il fait comme ça. Tu sais, c'est quoi C'est affaire là, la affaire de sorcellerie là. Vous voyez ceux là, quand ça commence, ils te demandent souvent ton bras. Si ton pas de main c'est ton pied de main. c'est ton ventre, ça se comme ça. J'espère que tu pas rentré depuis toi-même là. Toi-même là. Toi-même, Bakayoko là. toi mm-hmm. Tu deviens tout d'un coup comme ça riche. Tu as l'argent partout. Toute la communauté va parle. Bakayoko là. Bakayoko aussi. Mmh. tu es marié. Bakayeko, ils vont te demander ta femme. Si tu n'as pas demandé ta femme, là, si tu as un enfant, c'est l'enfant qu'ils vont demander. Tu as vu aujourd'hui, tu vois plein d'enfants, ils sont dans la maison, leur visage est bizarre, tête les tombée en bas, menton les monté. Tu as vu ça mm. C'est comme ça ça fait. Il faut te méfier. J'espère que tu n'es pas entré dans l'affaire de sorcellerie là, de Bakayeko. Moi, le conseil que je peux te donner là, en tant que frère, faut prendre ta femme, tu en as mal à l'hôpital. Arrivé là-bas, toi, tu vas voir ce qui est dans que les gars, là, ils s'amusent même aujourd'hui, elle demande. Sa femme, là, elle est. Oui. Mais pourquoi tu me toujours à Gopou me compares à Gopou je... Mais tu fais André, a fait ce que Gopou a On est venu pour te renseigner. Je suis Gopou. Moi je suis Gopou. C'est moi qui t'ai dit que je suis Gopou. Mais... Il t'a dit que je suis Gopou. Tu, tu me Tu me laisses Piquez-moi ballon Un frère, un frère, Va là-bas Aïe, faut partir Faut partir T'as pas le nom Aïe Ta gueule des gens, tu là, tu me racontes des trucs de... de... Donne-moi mon fils et ma femme Yawawa Benita Benita Benita mon fils Ouh di ko topp Lisa Lisa chérie chérie Lisa chérie Lisa Lisa Lisa allo waa Rugi waa na nga def ça va waa Rugi ndey dafa ëmb waa te yow xam nga am nga fi ñeenti xew te xew bu nekk ndawtal naa la bind naa ko bi ma la jëkk ndawtal ñeenti junni la déedéet du ñett ñeenti junni la bi ci topp ma tegaat ci ñaari junni muy juróom benn bi ci toppaat noonu ba muy ñeenti yoon waaw ñeenti junne xam nga boo ko duplee juróom-ñett la beneen bi ñëwaat compter ko waaw bu bu diisee rek ma wax la waaw nga teel ko dajale waaw kay ñeenti yoon laa la wuy si xew du ñetti yoon ñeent la waaw kay jërëjëf ñàkk jom kii du delloo ndawtal waaye sàllaaw man mii suba gu jot ma woo ko dana ma ko delloo moo xam fu mu koy jëlee mi dina ma ko delloo nagal mawoo waa France waaw tuuti. Mm. merci. Paxoon Ngok. Bokar. siyaar naa la gërëm naa la. ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp. doom ah, mm. ma. lucu banget formidable tu as tous les documents waa d'accord xoolal cette fois-ci nag il faut qu'on se voit dans un lieu public waaw waaw c'est plus sûr disons al mahdi d'accord maa la fay fekk léegi. calme-toi calme le gars a dit tous les documents. Ah nañ tase almaxdi léegi. ok j'arrive tout de suite maa ngi ñëw léegi. damay dem régler li ma war a régler sama dund ak samay affaire man tam dama ko war a régler bàyyi ma waay waxtaan ak le fleur xam naa ne soo xeeñtoo parfum fleur yi di nga xam dama leen tànn ak benn soin pour nga jégalu rek jégal ma nga nga baax. li nii rek lay mën mel. la Koss. Kolos la. Kolos la def waaw. ça waaw. mais def fii. bu ma feebar doon def ay analyse fii sama résultat yi laay xaar. lui là, tu es malade. Il dit, il a envoyé les wolosos là-bas. sida. T'es mort, c'est sida tu as gagné comme ça. Résultat bien positif. Les Wolofs sont là pour rester. Toi, tu t'en vas. C'est fini. Keroog euh, benn comportement boo xam ne c'est un ko parce que waru woon lu ma mer mer waru noonu quoi bëgguma dara lu lay metti surtout nit koo xam da ko bëgg am foo ko teg li nga dégg ci man yépp tamit xamal ni euh, sama làmmiñ la génn waaye sama xel toggul lool ni sama xol togg ko mais propos moom pas traduit mes pensées nag ma baal man bëgguma euh, def la dara loo xam ne daf la metti xam nga yow sama xarit nga baal ma dégg nga. d'accord Thierno baal naa la. Mhm. man tamit man lay baal bu baax. Mhm. parce que aussi comprendre naa ne d'un côté. am na yoo mhm. xam ne peut liggéey bi la. ak stress bi moo la jàppoon ba nga comporté woo noonu. man tamit def naa erreur parce war ma woon décrocher sa téléphone. am na ñoo xam ne du ñu mélanger seen vie privée. ak seen bi professionnel. man dama ci làggi loolu. Mhm. Mhm. mais yaakaar naa dafa dalati. non loolu jeex na tey moom lay mujj. Mhm. yaa ngi dégg sama tante bi. jot naa ko téléphone tey euh, nee na ci biir semaine bii di ñëw lañuy jàpp benn bés pour def takk gi ñi ko war a yëgal ñëpp ñëpp yëgal na leen ko. man euh, xibaar bu neexee noonu kenn moom ko man maa ko moom daal xibaar bi quoi. Mhm. man tamit vraiment dem ak tey moom passé naa ay journée yu neex. Mhm. mais balaa ma leen nettali quoi que ce soit. Thierno. Mhm. sa gars ki ngay àndal nii sa garde du garde corps bi. waa xam nga lëccee xam nga nu mu doon mu ne jadd jaddaara. lëccee waaw nii garab nii. war naa jaar Diallo. ban Boubacar Diallo. mais Boubacar Diallo sama ex jëkkër. mais yow da nga dof fan lan moo la jot. Boubacar Diallo waxuma la nga def croix ci moom. mais attends mais Thierno mais li mu bon man Boubacar Diallo sama ex la te am naa fa jaar ak mais aw ma droit wax Boubacar Diallo mais yow da nga déglu li ma lay wax ba pare. du déglu wax joo wax ci Boubacar Diallo xanaa doo déglu li ma lay wax. mais ci la demal na nga def croix ci Boubacar Diallo te nga noppi laa la wax. Euh, docteur. oui ça bien. ça va ça euh, ma poupoune chérie. oui mais elle est donc je veux la. donc je envoyé pour que on a qu'à bien regarder son ventre là. Mm. te moins petit détail il faut regarder. Parce que c'est important. Là, l'enfant, il sera intelligent. Voilà. Donc, pour nous, voilà le docteur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes enceinte euh, On ne vous a jamais consulté La date de vos dernières règles, ça date de quand C'était le 25. Ah, le 25. la table. On va faire un examen complet. Mmh. Comme ça, monsieur sera content et rassuré aussi. <laughs> mais attends mais yow Thierno li ban façon comportement la. amoo droit tudd ko fii sa mbir kër laa la wax que ça soit la première et dernière fois. c'est parce que jox nga ma appartement dëkkal ma ci loolu moo tax amoo droit tudd Boubacar Diallo. amoo droit tudd ko mais je suis pas en prison ma nekk ma prison am naa droit tudd tur ku ma nekk Boubacar Diallo sama ex la loolu ban ban ban am naa fu ma jaar ak moom.

ci teen di taale mat nga xam ni te yi ngeen di jaay man nekkuma ci man du ma góor ñooñu ñuy yëpp. bàyyi ma ak yow mooy mi nga doon. ndax bandi laa di xam ndax bandi laa man ñooñu ñuy de. day tubaab waa dëggal boo sama suuf. kan moo la waxoon ne danga nekk en état. en fait dama def test. lii mhm. ma mu marqué woon deux traits. waaw mu marqué deux traits waaw. deux traits yi marqué woon na bu baax. marqué na bu baax kay. waaw gis nga dëgg sax. bëccëg. loolu daa non non damay xool nii ba léegi. Hmm. Mhm. Ça va, monsieur? Oui, ça, ça, ça peut aller, ça va bien. Bien. <laughs> ouais, ouais. J'ai vu madame. Hmm. seet naa ko xool naa ko. Hmm. mais quand même c'est un peu Comment ça Donc, sur l'échographie, on voit le placenta est là, ouais. bien formé et tout, mm-hmm. on voit rien à l'intérieur. Ah, non, madame, euh, docteur, attends. Mais c'est un, une nouvelle grossesse. Mm -hmm. Le docteur, bébé là, il peut. Tu sais que bébé là-bas, il, il, se promène. Peut-être il petit d'abord, il est parti se promener. Attends, ah, ah, faut bien regarder. Mais avec l'échographie, monsieur, on voit tout. Mais J'ai bien regardé, mais il rien. à l'intérieur. Et j'ai jamais vu ce cas-là. C'est pour la première fois. Mais mais comment placenta est là Et puis pas là. J'ai bien regardé, mais il rien. Donc, vrai, vrai, là, il rien. Tu n'as rien vu. Il rien. Vrai, vrai, là. Kisuma, dara, placenta, qu'est-ce que c'est mon J'espère que tu n'es pas rentré dans la tête. Parce que eux là, quand tu rentres dedans là, si tu es marié, Bakayoko, ils vont te demander ta femme. Si tu n'as pas demandé ta femme là, si tu es un enfant, c'est l'enfant qu'ils vont demander. Tu as vu aujourd'hui, tu vois plein d'enfants, ils sont dans la maison, leur visage est bizarre, tête est tombée en bas, menton est monté. C'est comme ça ça fait. Faut te méfier, j'espère que tu es parti dans l'affaire de sorcellerie là-dedans, Bakayoko. Tu dois la posséder pendant sept jours et sept nuits. Ensuite, elle appartiendra au gourou. Moi, je ne peux pas peindre des dialogues comme ça. Mais moi, même tous les pétrés, je suis là. Des dialogues, pourquoi comme ça Moi, je ne peux pas comme ça. Soit l'argent ou des dialogues. À toi de choisir. Je suis foutu. xaw ma da ngay li <laughs> nga xam ne du ma góor ñooñu ñuy fontoo jigéen ñi di yab yooyu ko yow li ñëw ci kanam. dimbali ma xaaral ngay wax dimbali ma xaaral. li ñëw ci kanam. yow waaw waaw waaw waaw waaw waaw benn bruit ma ni xaar ma xool je pensais que. non non y' a rien nañ dem bureau bi. merci. coow rek la kii jigéen la Lamine nga bàyyi ko nii ngeen bokk benn koñ même bul dara jëkkëram sa wëllëre la yow man sa jëkkëram sama xarit la keneen fii nga koy bàyyi mu roobu journaliste fekk fi foto ko wala li mu demee neneen mais di rafetul Lamine ah, te doo waaj dimbali ko man kay ah man maa ngi waaj dimbali ko Lamine kon da ngay dem waaw ñoom jàpp naa ma koy dem mais yow moom loolu nii. sama yoon nekk non mais lu mu métti métti sa jëkkër la te borom. sama jëkkër bu ma waxati bu ma ko waxati du sama jëkkër dem na ànd ak te jël sama xaalis ma amoon yëpp yëratuma dara. oh non. lépp toog lépp toog lépp toog jugal ñu ànd fenn jugal jugal. waaw jugal jugal jugal yóbbu ma la sa kër jugal ñu dem jugal yóbbu ma la sa kër jugal. lève-toi allez vas-y lève-toi lève-toi lève-toi jeune. waaw c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Sène alors naka mu. cool. ça Milk Zo. Milk Zo yow tu oses me demander Milk Zo. mais bien sûr mais on a commencé le boulot à 3 on doit le terminer à 3. voilà Wos il arrive et il a tous les documents. mais ça suffit pas. eh hey, yow tu as confiance en ce il était le bras droit de Thierno Diallo nga wax ma loolu ba pare tu as confiance en lui. et pourquoi moo tane lu mu mënti mel moo tane sa milkzo boobu mina boobu mel ni yow. attention Cathy m'a appelé tout à l'heure et Cathy nee na ma euh, reconnaître na milkzo ah. qu'est-ce que je t'avais dit. salut. Rose. mais boobu ba léegi ñun ñu ngi toog fii xaar rek. eh calme-toi. du ma calme xool. toute sa vie qui est dedans. waaw Weuss. donc donc donc il faut nga assurer. Weuss s'il te plaît donne-moi ces documents. moment moo jël sama lépp lépp lépp lépp ba pare lépp lépp lépp lépp moom ak kii ñoo liggéey. Ah mais seen kii xam nga ko fenn yow ah. kii am na lu may jox ah kanamam bii. waaw ah, c'est ça bon. ça fait mm-hmm. kii am na lu may jox euh, mais kii est-ce que du monsieur Diallo la. monsieur Diallo monsieur. moom la noonu la tudd Thierno Diallo waaw bon on l'a même déclaré mort. moorul de deewul de. Ah mu ngi fii. kii deewul déedéet deewul mu ngi fii moom ak kii ñooy liggéey. Eh yow ana Thierno Diallo. Thierno ngi fii rek. fan la nekk. ci corniche bi waxal fan la nekk. côté RFM. côté RFM. ah d'accord kon léegi seen. waaw da xool kii noo jëlee empreinte ko mhm. ñu xool ni ñuy jëlee gars yi dem jëli monsieur Diallo parce que kii mënuñu ko bàyyi mu jàll. Mhm. kon kii foo mu dem. eh jugal yow. merci beaucoup merci foo dem. merci commissaire jugal jugal ñun suñu liggéey la ñuy def monsieur Diallo parce que ñun tamit mooy loolu quoi parce que genre yu mel ni yow bu ñu ko si dëkk bi dëkk bi dina dox. merci commissaire. ah d' accord booy yóbbul ma kii ñu jël empreinte am gaaw la si bu gaaw ok. <laughs>

mais kan mooy fëgg nii ubbil bunt bi kookan la. Fatou Kiné. Lëccee Lëccee seen. mais kan Lëccee Fatou Kiné. kooku kanaan ma Lëccee. Fat Fat Foix. Malick. yow ah xame nga ma léegi xame nga ma léegi. Malick. non. yow li nga def yow s'il te plaît. yow li nga def yëpp yow jaay ko nit bi. yow yaa may denculu yow yow yaa may denculu. mais s'il te plaît contrôle toi. bàyyi ma ko dinaa la desal sa yow xam nga ni doo ci génne noonu yow xam nga ni doo ci génne noonu. je t'en Milk je t'en dinaa la desal laisse-moi seul avec lui. Kati wuyu ma bàyyi jooy bàyyi jooy kat yi man xaw ma lii lan moo ko fi jar kat yow kii takk bu la sax di la dóor di la takk lii lan moo ko fi jar Boubacar bëgg na la de bëgg na la yërëm na la te respecté na la nag am na fu la teg man su ma sañoon nga ñëw ñu dem nga delluwaat ci sa sëb gis nga sax affaire yi yëpp daf ma fi fekkul man lii yëpp su fekkoon xam nga ne doo bouger maître Boubacar sama frère la teew sama sœur la. Boubacar am na beneen jabar. bu amee beneen jabar nag mais fii Sénégal la ñu nekk. parce que am na beneen jabar moo tax na jug di daw mais fii dañoo am ay valeur yoo xam ne gars yi dañ ci war a bàyyi xel amul salaamaaleykum jigéen warul fuñ ne nii rek nga daw góor tamit warul warul dóor jàpp sa jabar di ko dóor jigéen kenn du ko dóor dañ koy suturaal yow tamit sëy boo ci nekkee da ngay muñ da ngay muñ te tey jii sa jëkkër bu indi beneen jabar nga nga toog defanteeg moom loolu la ñu xam fi Sénégal ok jóge ñu dem waaye lépp ay caaxaan la nañ dem ma ngi woo ñu dem nga dellu ci sa sëy yow mariage bu neex bi ñu la fi defal mu ñëw woy ko mu saf àdduna bi yëpp di la seetaan nga nekk fi di foog sàgg ne loolu nañ dem jógal jógal ñu ko woo de allo waaw Viviane waaw non mbaa ah fan nga nekk policiers yi ci ci ci lañ jëm ni fekk leen ma foofu fekk leen ma foofu ci bureau lañ jëm. jógal kat jógal jógal jógal. yow nekk tu yaa ngi dund waaye naa la yëgal dara yow xaw ma yan pexe ngay dem waaye mën ma dara yore naa fi ay kayit yoo xam ni dinaa la dugal lops laa lay yóbbu nga xam lops laa lay yóbbu. Eh, Ah. Vas-y, prends-les. J'en yow yaa bon yow yaa yées Thierno nga jël ma takk ma may sa jabar ma sëyal la nga yóbbu ma seen village boobu yow ak sa frère bu bon boobu. ngay njaaloog sama mag ku ma bokk ndey ak baay. noppi laa la wax Thierno tey man maay wax. tey doo wax dara da ngay sa gémmiñ ma wax ak yow sa frère boobu nga xam ne ma violé tu n'as même pas cherché à comprendre nga jël ma takk ma di ma dóor di ma toroxal waaye xamoon nga ni man xamoon nga ne dina am man j'ai attendu ce moment durant toute ma vie croyais que tu détenais tous les pouvoirs. Aujourd'hui, tu as tout faux. tey man maa pouvoir yi. eh Boubacar Boubacar. fii la fii la xàmme naa ko fii la. Kati. kaay kaay kaay. Kati. wax ko wax ko lépp wax ko yow. Kati. waxal ak moom waxal ak moom. Kati. waxul yëpp dara. kati kati lan la kati lan kenn moom mu doon doon pare takk ma ak ay corde. kii eh, mais de toute façon police ñu ngi noonu di yëg dañ koy jàpp police a ngi di dem dañ koy jàpp léegi léegi dañ koy yóbbu kaso. une révélation à te faire. Sache que de notre union, est né un doom boo xam ne doo ko mës teg bët yow doom boobu da sa mag bu bon boobu doon essayé rey jël ko ne da koy sànni ci fosse des gens comme toi ne méritent même pas de vivre. Fatou looy def nii Fatou Ndiaye. Fakine, pas de conneries, Fakine Looy def ni Fakine non non Fakine. Boubacar baal ma àq baal ma àq Boubacar li yëpp waxoon ngeen ma <laughs>

dama bëgg nga baal ma nga baal Lisa yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw ci kër gi ngeen sëyal ma sëy bi non non non Fatou Kiné